Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ci noonu maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi euh, tey rek liñ leen indil mooy remise de dons bi communauté libanaise bi nga xamante ne def nañ ko à l'endroit de euh, waa préfecture bi euh, Dakar ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa service de maladie infectieuse bi nga xamante ne professeur Seydi moom moo koy diriger donc li ñuy def rek ñu àndandoo xool association libano-sénégalaise boobu nga xamante ne mi ngi regrouper les professionnels de la santé et quelques opérateurs économiques lan nañu def ci don du bi nag mooy doom bi ñu njëkk a jox jox nañu doom yu bëree bëri te su ñuy jox dañuy laaj lan lañ soxla ñu bind leen ko ñu jox ñu loolu jox nañu fii wax naa ñoom pour ñu dimbale jam ñaajo dem nañ dimbale jam ñaajo wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale si lépp euh, laa biir boobu nag ah njëriñ rek lañ si gis parce que ñu ngi ñu dimbale si liggéey waaye yàlla nelawul moo tax ñu di leen ñaanal yal la leen yàlla fay euh, lépp lu luñ bëgg yàlla defal leen ko mu gën ci ñoom liggéey bu bëree na nag su suñ nelaw doyatul suñ noppaloo doyatul waaye nag moom daf ñu jàppale bu baax a baax parce que suñu amoon 2000 3000 4000 30000 cas mbir yi du demee ni parce que cas plus muy bëri plus nit ñi di dee loolu moom bu leen ci kan nax réew boo munta dem. soo gisee moor yi di gën a bëri lu lien bu gën a gaaw mooy nombre bi xam ngeen pays européen am nañ moyens yu rëy rëy mais nit ñaa ngi fay faatu chaque fois ñoom ñoo ñu ëpp moyen foofu mais parce que nombre de cas yi dafa bëri lool kon ñu ñun il faut ñu fexe cas yi bañ a bëri tant que bëriwul amul lu ñu tiit comme nu ma ko waxee woon waaye. docteur jafaar li mu def lu rëy la bu ko defee nag def ko tey ci fii ci ëttu professeur Seydi defe naa c'est symbolique jotaay bi tuuti na waaye lu am solo la parce que. Euh, conditions yi ñoo ko laaj dañu bañ attroupement yu bari donc xam nañ xamal que ne tey li ñu àndi tey jëmale ko tey ci hôpital bi lu am solo la tey ku nekk war nga jouer sa partition sa partition mooy tey médecin def nañ seen devoir wax nañ li ñu war a am comme comportement cas communautaire yi nag comme ni ma ko waxee communauté bi moo koy réglé du ay médecin parce que ku nekk bu moytoo wàll moromam ba pare wooy moytoo moytuñu wàll ko dina am benn esprit citoyen esprit citoyen boobu donc ci discipline la laaj discipline boobu damay profité ci car rapide yi oto yi nañu respecté règle yi marché yi ñu respecté règle yi vraiment entrée yi sorti yi port de masque bi jàppale médecins yi tamit jàppale leen équipé waat leen équipé waat leen jàppale leen sur le plan social c'est bien donc don boobu ñu ngi ko yóbbu hôpital euh, Fann euh, ñu gis ci euh, professeur Seydi et c'est tout ce que nous attendons de la part de tout citoyen ku ci nekk jóg ci domaine ba nga ne ci wàll ba nga féete ci doole bi nga am dugal sa loxo ci xeex bi waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee euh, donc comme ni ñu leen gisee rek mooy communauté libanaise bi nga xamante ne moom moo nekk fii ci Sénégal donc pour citer Al Houda Al Nour Notre-Dame du Liban ak Inondation Dakar opérateur économique yi comme ni ma ko waxee woon sànq ak association bi nga xamante ne moom moo regroupé les professionnels de la santé fii ci Sénégal donc bi ñu demee remettre li nga xamante ne moom moo di don boobu gis ngeen ko professeur Seydi remercier ne leen bu baax a baax waaye a profité aussi pour lancer un message comme ni koy waxee donc bu may topp ay ay moo xam nee na si la prévention ne se passe pas bien cela nous retombe dessus ba tax na nag il sera plus difficile de prendre en charge ñi nga xamante ne di maladie correctement donc na gars yi bu baax li nga xamante ne di consigne rawatina le port des masques qui est devenu maintenant obligatoire donc euh, nit bu fekkee topp loolu je pense que ñoom dinañ leen mën a jàppale parce que ils abattent un travail boo xamante ne c'est énorme te moo di équipe am donc nee na qu'il a la meilleure équipe et puis nous aussi mun nañ ko ko may parce que vraiment gis nañu qu'il a bas un grand travail il en a profité aussi pour remercier le directeur de l'hôpital Fann parce que nee na moom bu leen jàppale wul woon kon liggéey bi yëpp duñ ko mën donc comme double don la ñu gisaat ki nga xamante ne moom moo di préfet euh, euh, le sous-préfet Djibi Diallo moom tamit nee ki qui trouve cet acte là très noble et très normal pourquoi parce que li nga xamante ne moom moo di libanais yooyu fii nañu nekk te boo seetloo sax ñu bare ñu juddoo fii nañu euh, fekk baax de ce fait lu ne mel buñ ko defee lu leen war la donc def nañ nag ay don bu njëkk paraît yóbbu ko fi nga xamante ne moom moo di jam ñaajo ñu defaat double don bi indiwaat préfecture ak fi nga xamante ne moom moo di et euh, ñoom et puis ñoom euh, et puis ñoom Mado ay sénégalais lañu man am naa ci ay xarit yoo xamante ni seen pap fii la juddoo ki jur seen mhm. pap fii la juddoo ki jur seen papaay pap fii la juddoo c'est-à-dire ci plus de quatre mhm. générations diggante Fatick Diourbel ak Kaolack la ñu seeni sët c'est des Sénégalais ah. c'est des Sénégalais. oui moo tax je voudrais dire que c'est des Sénégalais peut-être que ay Libanais. waaye danoo xees comme danoo xees comme yow rek. <laughs> tarkalla macha allah gis nga donc vraiment comme ni ñu ko waxee rek donc on peut dire que c'est des sénégalais parce que li ñu def nii nag kon lu leen war la donc comme ni ñu koy waxee euh, le sous-préfet Djibi Diallo remercier na leen mais lui aussi il en a profité pour remercier ñi nga xamante ne moom moo di waa euh, équipe professeur Seydi parce que nee na qu'ils abattent un travail vraiment remarquable parce qu'ils sont tellement déterminés à li nga xamante moom moo di Covid 19 boobu donc de ce nañu a def très attention moytu li nga tere léegi nag moom nee na fi mu ne ni combat am mooy gën a nekk combat bi jëm ci wàllu marché yi parce que ñi ngi ciy xeex ba tey waaye des na ñi nga gis ni démb tëngee ci suba te ñi ngi gis ma nga fees dell nit ñaa ngi demalante dikkante kenn solul masque donc je pense que bii pas comme ni nga ko waxee waxee sànq comme le ministre l'a dit je pense que Aly Ngouille li mu jël euh, bu ko dogalee fi mu ne nii ci réew mi je pense que nit dina métti ci ñoom balaa ñuy génnewaat nag ay yatak ay yooyu du leen di dumawaat donc na ku ci nekk responsable doon sa màggu bopp jël li nga xamante ne respecté li nga xamante ne moom la ñu digle su boobaa di nga mun a aar sa bopp aar sa ñaale ba pare ñu génne ci dellu nag ci mbumbaay bi nga doon wax neex-neex yooyu parce que namm nañ ko tamit euh, yi namm nañu euh, accolade yi ah namm nañu <laughs> seeti wante bi euh, loolu yëpp nag buñ ko bëggee euh, dundaat peut-être liberté la nanu gën a farlu respecter mm. mesures yi ça nous permettra de xeex ba daan li nga xamante ni moo di coronavirus bi en tout cas la décision prise par les autorités mooy masque yi léegi dafay obligatoire yéen ñëpp balaa ngeen di daaneel ku ci nekk di nga ci sànni ñaari baat jëm ci respect bi na ñëpp takk seeni masque lu ko mooy dinañ ñu teg ay daan. oui Pape je pense que là on est obligé de faut le faire comme ni ñu koy waxee je pense que pour une euh, bonne santé fi nga xam au fait je veux dire euh, sans la santé donc euh, il point de développement te sans le la bonne santé aussi nit yi du ñu mën a jàng donc autant ñu xeex li nga xamante ne moom moo di santé bi mu dal ñu ñëpp wér bu baax a baax su boobaa nit yi mën a continuer def seen jàng dellu ci li nga xamante ne moom moo di seen liggéey ñëpp nekk ci jàmm kon na gars yi nekk de responsables nekk ay mag te xam ne jot na lu respecté initiative yi parce que namm nañu toog ci sa wet boobu di la lakkal maag may mu a ñuy defante mu may naan sa loxo nga ci soos ñuy raak nga toog di rek yàlla baax na euh, mais quand même mais quand même bul fàtte ah à À tout à l'heure. À tout à l'heure j'étais j'étais à l'œil. <laughs> ma wuyu ma nag moom macha allah da nga yëngu yaa ngi ci état laf cat laf cat. yow tamit yow man man mag la ma damay jékki-jékki rek yëngu. <laughs> tey moom yaa ngi ci dara macha allah. À tout à